wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiallahu anna cheikhana qutbul maktum saahibul xatmiya wal kadmiya abil abbasi ahmad ibnu muhammad tijaani sharif radiallahu taala anhu wa an waari sirrihi saahibul faydata tijaani cheikhana abi isxaaq alxaaji ibrahima ñas radiallahu taala anhu gannaaw buñ sante yàlla di julli ci yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam di sant suñu sëriñ cheikh ahmad tijaani sharif radiallahu taala anhu di wax alhamdulilah di sant suñu sëriñ bu nga xam ne mooy suñ bunt ci yàlla di suñ bunt ci cheikh ahmad tijaani sharif radiallahu taala anhu di suñ bunt ci yonent bi Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu mi nga xam ne moom la yàlla teg mu nekk ci buntab sëriñ xam ne damay wax ne cheikhu kulli awliyaahi waaye alquran waxoon nañu nañu ki walaakin aksara naasi laa yaalamoon ñu ngi sant yàlla bu baax di retourner ci question bi nga ñu laaj mooy alaaxa bi dox ci diggante Baye Cheikh Tidiane ak Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu mu nekk alaaxa boo xam ne alaaxa mbokk la ak nit ak kilifaam ak alaaxa boo xamante ne nit ak sëriñam sëriñ nag dañuy ànd am nu ñuy àndeek moom kilifa dañuy am nu ñuy àndeek moom ndax bi nga xamee ne ñoom ñëpp maam El Hadj Abdoulaye seen way jur jur leen jàngal ñu mag ñi taxawu leen def ci ñoom xam-xam dénk leen ndaw yi Baye Cheikh Tidiane gannaaw bu mu nekkee doomi Maam El Hadj Abdoulaye ci taarix boo xamante ne dañ koy tënk fii rek ci waxtaan wi nga xam ne tey mooy doomi Maam El Hadj Abdoulaye Niass bi mujj si doomam yi mu dippee ko Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala nga xam ne ci gannaaw tukki faasam ci la Baay Cheikh Tidiane Niass juddu si ay ñaanam ci rawdu Cheikh Ahmad Tidiane Cherif radiyallahu taala nga xam ne am na lu ko yëkkati woon yóbbu ko si Cheikh Ahmad Tidiane ñuy tinkeeku si tarixa Tidiane ak faydu bi nga xam ne Cheikh Ahmad Tidiane moo ko wax ne taati faydatu ala ashaabihi maam alaa jab laa ñu fuuglu ko ci boppam amoon nafa fa yeneen yóbbal yoo xamante ne indaale na ko fi mi mi lu mu barkeeloo ci Cheikh Ahmad Tidiane Cherif radiyallahu taala mi karawam ak ay peri kurusam ak li nga xamante ne tegoon nañ ko Cheikh Ahmad Tidiane bi nga xamee ne wan na gannaaw àdduna ci zahir ndaale na ko ak yu bëree bëri bi mu demee nag Cheikh Ahmad Tidiane ne soxlaam si du ko wax kan Cheikh Ahmad Tidiane la koy wax am na ñuy juum ne maam dafa duggoon xalwa waaye maam dugg fa woon xalwa dafa toog di ñaan yàlla ba Cheikh Ahmad Tidiane feeñu xalifaam imaamam si jumaa ji wan ko tegtali maam Alaaji Abdoulaye ne ko nangam ak nangam la indi jël si su ñëwee na ko ko jox maam Alaaji Abdoulaye Niass na tegtal googu bi ko ko xalifa bi waxee daf ne ko ah gis naa kenn ku niroog waa zaawiya bi de moo ma yebal ci yow pour ma ñëw jël ci lool loolu nag sant yàlla bu baax la ak cër bu ma am si Cheikh Ahmadou Tidiane yi lii waral cër bi mooy li ko fa yóbbu woon yëpp yàlla firndeel na ko jamono wane na ko muy faydatu Tidiane yi yàlla teg na ko ci suñu loxo suñu sëriñ alxaaji Ibrahima Ñas radiallahu taala anhu tamit yàlla boole ñu nangu ko yàlla boole si nag si nag nekkut ne sa góorgóor loolu la koy mer waaye cër bu lay yàlla jox la foofu tamit ñu ngi koy taxaw sant yàlla bu baax sant tamit suñu waajur Cheikh Ahmad Tidiane yi bi mu ñaanee ba pare nag dafa yónni soxnaam si nga xam ne moom la àndaloon ci tukki bi ndax ci taarix bi wax na ne ànd na ak soxnaam ak doomam Baye Cheikh Omar Niass yal ak ñu bari ñoo xamante ne àndoon nañu ak ak si ay taalibeem mun ne ko Afisatu Gay mu naa mu ne ko dugal nga ñaan yàlla sa soxla si mu dugg ñaan yàlla bi mu génnee mu ne ko Afisatu lan nga ñaan yàlla mu wax ko lim lim ñaan ko yàlla te loolu yëpp ñu fekkee ma Afisatu Gay ab dundam wax nañ ne ma Afisatu Gay loolu yàlla defal na ko mu ne ko Afisatu Gay mu naa mu ne ko dugal nga ñaan yàlla yàlla may la doom ju góor ma tuddee ko Cheikh Ahmed Tidiane ndax moom rek laa deseel Cheikh Ahmed Tidiane loolu mooy sababu ma Afisatu Gay dugg ñaan yàlla doom yàlla may ko ko bi mu ñibbisee si tukki Maam Alaaji Abdoulaye Niass boobu yàlla jox ko doom jooju muy Baye Cheikh Tidiane Niass nga laaj ñun naka la àndee woon ak Baye Maam Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu taala anhu gannaaw bu mu dalalee Baye Cheikh Tidiane Niass ci daara moo ko jël teg ko ci loxo Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu ñu ngi wax ne Maam Alaaji dafa naboon ci doom ci téere boo xam ne lëj na maanaam naaw na ci ngelaw li ci taw si la Baye jëlee Baye Cheikh Tidiane Niass jox ko Baye Cheikh Omar ne ko Baye Cheikh Tidiane Cheikh Omar ma àlliwoom Baye yeggali àlliwoom jàngal ko xam-xam ba moom tamit mu samp di jàngale xam-xam di jàngale alxuraan ci biir këram yore daara. gannaaw bu Maam Laa Jëb laa Niass génne àdduna mu nekk ci loolu ba yéex yàlla def. Baye Cheikh Omar mi nga xamante ne moom la ko tegoon ci loxoom Baye Cheikh Omar génn àdduna ndax kóllëre kenn du ko dagg jàngee nañ loolu ci jikkoy Baye Cheikh Tidiane waaye terewut loolu nga xamante ne mi ngi ci loxo Baye Cheikh Omar a ngi dund lépp lu Baye woote moo si njëkk te kenn du ko ci man su Baye tool yi Baye ñu xoote ci koosi dana jógee kër biraan gi mu nekk dem koo si bàyyi ànd ak taalibe yi njàngam alquran fii ci madina dana jóge ànd ak taalibe yëpp ñoo ànd jàng si alquran su joxe haddiya jotee mu dem joxe ji haddiya ñu ngi nettali ne maam Abdou Guèye mi nga xamante ne mooy woy juróom su bàyyi Cheikh Tidiane tukkiwaan dem laaj addiya ba ñëw maam Abdou Guèye day jël ganaar yi yi nga xam ne indi na ko dem yóbbul ko sëriñam sama turandoo Sidi Aliou radiallahu taala anu jox ko ko su ñu ñëwee na waaw an sama ganaar yi su ko defee suñu way jur na ko ah ganaar yi de sa yaay jël na ko mu ne ko ah yaay ana ganaar yi mu ne ko jël naa ko yóbbul ko sama sëriñ su ko su koy bàyyi Cheikh Tidiane dafay ree rek ne alhamdulilahi rabil alamin loolu xam nga ku sant yàlla ak ku nekk taalibi rek la yàlla mun a may lool ci xol ñu ngi koy sant ci loolu di ko ci gërëm bu baax baax di ko ñaanal yàlla fu ñu toll ci loolu nag la demee bi bàyyi Cheikh Omar génne àdduna ñi si gënoon a mag ñett lañ si jamonoy gàmmu la leen oo kenn ki lii sama nijaay Ousmane moo ma ko nettali moom mi ngi dëkkoon ci Taïba Ndioufène ak geneen góor gu sant Guèye oo leen na leen dajale leen ñoom ñëpp ñu daje mu ne leen nit de du ñàkk kilifa nit dafa war a xam kilifa te gannaaw doomi Maam Alaaji Abdoulaye Niass mu ngi si àdduna nekk suma mag rek mooy nekk suma kilifa te maam El Hadj moom la mu njëkk a jox mi Cheikh Ibrahim sama kóllëre googu laay dem yeesal ci moom keroog bi muy dem mi ngi jël ñetti oto ñu dem àgg bi ñu demee mun ne ko ah mu nuyoo mu ne ko Cheikh Tidiane bisimilah mu dugg si toog ni ci wetam baa ngi toog ci kaw lal mu ne ko dama yeesal sama kóllëre tamit beesal sama taalibe ndax baa yow la ma njëkk a jox. damaa yeesal sama taalibe ndax nit du ñàkk kilifa bàyyi na ko alhamdulilah Cheikh Tidiane day wax daan nga ne am nga ne wan nga yit nabi ne ma wilaaya yotu bu fekkee am na màndarga mooy kóllëre kóllëre googu saxal nga ko te yow sax man la la bàyyi njëkk a jox mi maama laa jëb laa keroog bàyyi dafa kontaan mu ngi amoon ganu shérif gani shérif googu keroog mi ngi bindal Baye Cheikh Tidiane Niass lijaasa Baye ñaanal ko mu ànd ak taalibe yi ñibbisi ñun liñ fekkee ci moom ak ñi nga xamante ne ñooñu mag fekkee nañ ko ci moom mosta am cër bu mu ooteel boppam wala mu di ko ut ndax lu dénk njabootam la pays bii lépp lu ngeen fi oote lu dul taalibe da ngeen oote loo xamante ne da ngeen ci sonn te du ngeen ci jot ndax cërub taalibe rek la fi yàlla di joxe cib cër te moo fi gën a rëy fexe leen ngeen am ko loolu nag si lañ tënku si lañ saxoo si lañ nekk ci dundam ak ci gannaawam te loolu la koy firnde ci dundam Baye Cheikh Tidiane Niass maa ngi dégg son benn mag Mouhamad Bachir bu son baay alaaji Mamad Zeynabu radiyallahu taala anhu mu nettali ma mu ne Baye Cheikh nit ku simple la woon nit ku teey la woon te nit ku civilisé la woon tey it ko xam yar la mu ne ñun li ñu daan fàttali ba si àjjuma ndax Baye Cheikh Tidiane Niass 11 la daan ñëw si jumaa ji Medina su rombee ak parasol bi ñu ne ah kon tey la àjjuma Baye Cheikh Tidiane ñëw ne ñoom ñëpp ñu jugee si seen grand place fi ñuy toog ñëw nuyu ko mu nuyuwanteeg ñoom dugg waaye tank dàllam yi mosut dugg ak moom si jumaa Medina su ñëwee ba jub jumaa ji rek day sumi ay dàllam. dugg si jumaa yi Medina ji su jullee ba pare dem jaar kër xalifa Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu alaaji Abdoulaye radiallahu taala nuyu ko ziyaara wante ak moom jamono bi fi Baye Cissé nekkee sax noonu la daan def day dem jëm si Baye nuyu ko ziyaara ko jaar si alaaji Abdoulaye nuyu ko ziyaara ko doodu di ñu ñibbisi ñi nettali tamit eh, ne bu demaan gàmmu nii am na ko ko nekkal Mouhamad ñas mu alaaj mu alaaji mbay ñes bu baa baay amat ñes bu maam alaaji Ablaay mu ne maam Cheikh Tidiane bu daan dugg si si juma si tante Medina bi ba si gàmmu du bëgg sax nit ñi xam ne moom mooy dugg si ndax dox bu mu daan dox di teey su ko defee alaaji Ablaay mooy jóg naa son baay xalal leen ko yoon wi mu ñëw dugg si day dugg rek toog bañ gàmm ba pare ba ñaanal mbooloo mi mu jugee Medina ñibbi si Kaolack yeewi taalibe yi taalibe yi ñibbi si jàmm mu ne leen yal na leen yàlla delloo siwaat ci jàmm ci dund boobu la nekkoon dund bu teey yar ci njabootam bi mu fiy jógee quatre vingt la fi bàyyi doomam ñu koy wax Baye Modou Niass moo nekk photo bale Baye Modou Niass mu des fi ak njaboot gi yar leen mottali seen yar ñu ànd ak moom ba tey moom yàlla jëlee ko fi rakkam moo fi nekk mooy xalifa baay Cheikh Tidiane mi Cheikh Ahmad Tidiane yi ibnu Cheikh Ahmad Tidiane ibnu Alhaji Abdoulaye Niass Al mu nekk fi tamit moom it di ko teey di ko baax nag koo xam ne fépp fu baay Cheikh Tidiane Niass musa taxaw tànkam ànd na fa ak moom ndax baay Cheikh Tidiane nekkoon na nit koo xamante ne ci ñaan yàlla la daan wéy tey di daan def ay xalwa yu bëri di ñaan yàlla ñoom ñaar ñoo daan ànd Cheikh Tidiane moom moo fi nekk tey ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér yàggal ko fi tey ñaan yàlla ay projet mi yàlla yeggale ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla def si njabootam barke dund boobu daal si la Baye ti Tidiane dund si la ñu yar si euh, discipline lañu yar ci jàng la ñu yar ci xam-xam la ñu yar ci njub nag la ñu yar ak jaamu yàlla ci loolu la ñu nekk xamuñ taxawaalu xamuñ def sa naka tudd noonu ndax boo ko buggee def sax sa deret ji moo la ko dut may ci loolu lañ nekkoon mu nekk doomi maam Alaaji Abdoulaye Niass waaye gannaaw lu mu nekk doomi maam Alaaji Abdoulaye Niass nekk euh, doomi pays bi yëpp terewul loolu yëpp da ko jaay jëndee ko ak taalibe xidmaal Cheikh Ibrahim liggéeyal ko ko ci kurusam ci ñaan yàlla ba am yu bari yu mu dénk ko ko ci ñaan yàlla te Baye Cheikh Tidiane doon ko doxal te tey ñun ñu xam ko taxaw loolu téye si suñ kurus de ci ñaan yàlla ndax bugguñ bu jiyee pusa bi pusa bi réer ñu ñaan yàlla yooyu nag ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla feeñal ci kër Baye Cheikh Tidiane Niass yàlla feeñal ko ci njabootam feeñal ko ci ay doomam mu nekk tamit nit koo xamante ne da daan taxaw ci tooli bàyyi di bay nettali woon naa fi fii passé ci émission bi fi jiitu woon ne mës na jugee kër biraan ànd ak taalibe yi ñëw bay si bi ñëwee bay si jamonoy koor mbay mu métti ñoom Baye Cheikh Omar ture ñoom ñëpp ñëw suñ bay bi biñ bayee yéex a ñëw ñu toog tool bi jeex ñu toog si taati garab gi ñoom ñëpp ñu ko fandoo nelaw yàlla def ñoom ñëpp ñu bokk benn gént di gént di dog waaye fi ñu dogee biir aljana la bi leen bàyyi ñaanalee ba pare ne leen foofu ngeen gént dogee fi de ñoo fay bokk dogee ëllëg te baay nettali ñoom nettawul kenn nettaliwut bàyyi géntam léegi nag loolu sant yàlla la te loolu su la ko sa baay liggéeyalee ci pays bi mel ni pays Cheikh Ibrahim mii nga xamante ne tey ànd ak moom ci taalibe amut quoi amut lan la amut fi ngay teg sama loxo bi nekkal taalibe rek kon li ko baay waxee ko kun ka mayitin kama law kaana dunal aalami nekkal ni melal ni ku dee mu àndeek moom noonu bàyyi def ci li muy def ci moom mu jugee fi ay doomam taxaw fii si ñi seen ba pare te zaawiya maam El Hadj Abdoulaye bi nga xamante ne tey baay moo ko moom donn ko si maam El Hadj Abdoulaye joxoon ko Baye mbay Niass ne samay samay doom jiite buñ fi nekkee buñ fi nekkut doomi sama doom yi nañ jiite Baye Mbaye Niass moo yore woon zaawiya boobu bu fi nekkee bu ñëwee fii ñeseen bu fi Baye Mbaye Niass nekkul Baye Cheikh Tidiane moo doon ko wuutu si moom ba Baye Mbaye Niass jugee fi 73 la bàyyi Cheikh Tidiane Niass yore zaawiya boobu noonu di ko jiitee ba quatre-vingt-cinq yàlla def mu génnee fi àdduna quatre-vingt-cinq fi la ko fi bàyyi teg mu nekk fi di jaamu yàlla di xidmaal Cheikh Ibrahim ba tey bëri na ay taalibe yoo xam ne fii ñu ngi ci lew na ci gannaawam lañ nekkoon te tey seeni doom ay taalibe lañ ci kër gi ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax di wax ne alaaxa bii moo dox ci diggante baay Cheikh Tidiane ak baay ñu bokk benn baay waaye loolu yëpp baay Cheikh Tidiane jël na ko tegee ko fële jël lool yëpp jëndee ko ak taalibe ba yàlla def ko mu nekk taalibe boo xamante ne seedeel nañ ko ko fi balam fiy jóge ndax bi muy génnee àdduna bésu àllarba duma ko fàtte Alaaji Abdoulaye bi mu ñëwee ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhuma biñ ko tegee Baye Cheikh Tidiane Niass si buntu zaawiya Maam Alaaji Ablaay bi daf ne ñàkk nañ baay ju baax ñàkk nañ kilifa gu baax gu teey ñàkk nañ jullit dëgg waaye ñàkk nañ tey ab taalibi bu baax loolu nag sant yàlla la alhamdulilahi rabbil alamina cër boobu ñun yàlla nañu ko yàlla jox def ko si suñuy doom ba pencu bi yàlla yàlla mën na ko si mbaaxam yàlla na ko yàlla def loolu daal mooy alaaxa bi dox si diggante Maam Alaaji Abdoulaye Niass si diggante doomi Maam Alaaji Abdoulaye yooyu Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy suñ sëriñu baay ak suñ baay seex Ahmed Tidiane. waa alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax beneen yoon di wax ne baay Cheikh Tidiane daal jaboot na ci góor ak ay jigéen ci ñu jub ñu am xam-xam ñu am taalibe ñu yaru sëriñ Modou moo si mag maam Ahmed Niass mi nga xam ne moom la tuddee bàyyi maam El Hadj Abdoulaye moo ci ndaw te kooku mooy sët bi gën a tuuti ci sëti maam El Hadj Abdoulaye Niass yi yàlla jox ko ko mu nekk ku baax di ko yaru di rakk ju baax mu ngi jiite jumaa ji fële ci coofak moom moo ko yore ay doomam daal yépp ci lii lañ nekk ci jaamu yàlla ak liggéey ak dundal seen njaboot ci lii lañ nekk ci lii la leen yar tey yar leen ci ñu nekk ay taalibe Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala ba lépp luñ gis mu bokk Cheikh Ibrahim Niass seen sëriñ lañ loolu daal si la yar ay doomam ñu ngi si sant yàlla bu baax baax man mii di wax ak yéen si émission bi man maay sëriñ Aliou di doomam di ñaan yàlla ngeen ñaanal yu yàlla njub googu ak eh, yaru googu nekk ci kër gi mu des fi yàlla def si ay boroomi xam-xam def ci borom yi njub def fi borom yi wërsëg barke sidna Muhammad sallallahu alayhi wa taalibe yi ci kër gi ñu ngi leen ñaax te li ñu leen ñaax tamit ci la leen fekk yàlla def na fi ay taalibe yoo xamante ne depuis Baye Cheikh ba léegi ñu ngi ci ron kër gi lépp lu kër gi oote ñu ngi ci taxaw mën ci ñu ngi leen ci ñaax ñu gën a dëgëral seen taxawaay ndax Baye Cheikh Tidiane defe naa ne bu fekkee ne njëkk na am taalibe mu ko amee si maam Matar Diagne mi nga xam ne moo daan jottalil maam El Hadj njëkk a wax ne kaani garabi doom yu mujj yi ñoo gën a saf mooy bi nga xamante maam El Hadj Ibrahima Niass génn na àdduna Baye Khalifa mi radiyallahu taala anhu taalibe yi ñuy wër taalibe yi moom moo jël fasam togg si Baye Cheikh Tidiane Niass boobu Baye Cheikh Tidiane mu ngi à l'âge de huit ans huit ans si la ko jël togg ko si fasam ñuy wër taalibe yi moom jour boobu la jox Baye Cheikh Tidiane boppam ba njabootam gi yépp fii lañ leen xamee ci kër gi ñu nekk ci kër gi eh, loolu dox ko la goog suñu diggante ak ñoom ba képp koo xamante ne sax mi ngi ciy génn àddina dafay na xam ne bàyyi kër kër bàyyi Seex Tijaan Ñas nañ ma toppatoo sama bàyyi am fa ay turandoo yoo xamante ne ñoo mag ay doomam ñu ngi ñaanal yàlla kër googu tamit kër maam Matar Diagne googu yàlla saxal fa njub ak wërsëg sàmm leen xaar leen ndax ñu baax lañ ndax maam Matar jaañ toog ci kanam maam El Hadj Abdoulaye Niass maam El Hadj Abdoulaye di firi alxuraan moo taxoon mu miin alxuraan ba mokkal alxuraan. ba mën a firi alxuraan maam Matar Diagne noonu noonu tey moo jur ñi nga xamante ne ñooy jottali sëriñ si bi wax bu ñuy wax fii ci madina seen maam moom moo jàpp tombé woon ak maam El Hadj Abdoulaye ba ci taalibe yëpp ci dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk Saalum ak Mbuur ak Dakar yëpp Baye Cheikh Tidiane dafa daan dem ba Casamance ay taalibe fa ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm yëpp ci kër gi def ko ci taalibe yi defal leen wërsëg. te sàmm leen taxaar leen te may leen jabar gu baax gu barke gi nga xam ne Baye Cheikh Tidiane Niass moom leen ñu ngi leen ko doon ñaanal bala ñuy tëj nag émission bi ñu gërëm suñu xalifa ndax commencement ba gërëmoon nañ ko gërëmoon nañ euh, Cheikh Mahi mi nga xamante ne tey mooy Cheikh Ibrahim ci kaw suuf ñaanal ko yàlla moom itamit ñu ngi koy ñaanalaat yàlla rek di wax ne yàlla na ko yàlla may wér mi Cheikh Ahmed Tidiane yàlla may ko wér kàttanal ko yàggal ko suñ kanam te saa yu soo gis ñu si barke Maam Alaaji Abdoulaye Niass barke suñ sang bi Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu jëf